suuratul muzammil waaw aji dëppoo jëm raayam sallallahu alayhi wa sallam makiyatul kalir makkale aw indaa qawluhu inna rabbaka la'alaa indaa qawluhu fa madaniyun laa yore ko jëm madina la gisaa ko rafa juróomi ngeen def ci la aw usroni ci nit ki aaya fu ci taatee bismillahi fasu waxtu ci dundu rahmani kadal qiyam la ñu jaabu ya rahmani kadal qiyam bi ba ta xene ya ayyuhal muzammilu adiya al mudabbiru seen tool bi ñu doon mooy ba nga xam ne wéyum daal yi tàmbalee ci yeneen bi jaa xaarum raayam ba nga xam ne denc na jabaram Xadija Xadija ne ko jox naa la sama alal yëpp addiya mu ne ko doxalal alal bi ñu ko doon doxalee mënuñ ko ma yóbbal dama bëgg a dem di jaamu ci sama borom mu di ko wutal ñëw ba mu dem sa xaarum raayam jaamu jaamu booba mooy ñëw rek booba xol bi leer na ko amagut période bu mu jaamoo yàlla mu bëgg di ñëw rek sëriñ bi ñëw di di xalam boromam moom la doon jaamoo ja xaaral raayam day jamono nag nga gis luy waaw lu koy xooloo luy dégg lu koy xooloo waaye Mouhamad bu dee xeetu gis dara ñu ne leen xam ne defe naa ñu ne di ko jàppale man daal damay dégg lu may xool toujours waaw te du ma gis jëmm jël xam nga su ko defee ñu fas ko ci xolam ña ko yow yàlla du la ko waxal nit yow da nga jokk ak bopp da nga foog lu amul ci réew da nga dimbale képp ku am soxla soo xam ne soxla si dëgg la nga la benn daan di nga xam ne yii jikko yàlla du ko toroxal rek di ko def di ko def ba nga xam ne ñoom ñooy njëriñ ñëw na nag jiw ñëw jaaram ne ko iqra waaw taxaw iqra moo njëkk a wàcc ci alquran naka la ko jëlee ñëw. gannaaw ba nag ñeneen ci gën a jëlee ci saa yi rek xool këram yëpp yu seen këriñ ñu doon ci si tamit jafe naa sam ni nii sam ni nii waaw ñu di ko dëkk mbalaan yi tànn ko ay mbalaan def ci réew mi def ci réew mi moo tax waaw woy ji ñëw ci yaari saari ji ko waaye yaa yaari ñu dëkk réew yaa yaari ñu sëmmil ba nga xam ne dëkk nañ ko mbalaan bu diini ndal ñëw yaa yaar ñu sëmmilu éni réew aji dëkkoo ci mbalaan kum jógal kum julin lay la guddi kum julli guddi gi yëpp kooku jiitu bi yéen ci la wax laa ñuy tànn na ooye ko turam ndax xoote yi weesu ko rek ñu ngi waare képp ku dëkkoo mu laa doon guddi ba dëgëral guddi ñëwam di la loolu itam daa yàlla xanaa yàlla ñu dem ñu ko ñu leen la ilaa xariyal bi yéen daaw ku ñu julli loolu guddi yëpp ilaa xariyal nga lay ñu ñëw yëpp soo leen waalam rek julli guddi lépp mu ne ajunoo dara seen digla bala ji gën a bëri gën a mën a mën nga ngoog julli guddi lépp wala nga julli genn wàll guddi nelaw genn wàll nga def awul ko ci kër añul mënuñ ko genn wàll nga añul ajunoo wala nga wàññi ci genn wàll gi nga julli lu néew mu def tudd nga xam ne bon mën ngaa nelaw ñaari tudd julli julli loolu la ñu doon def ñu julli julli lépp gannaaw ba ñu julli genn wàll guddi gannaaw ba ñu julli julli si guddi xëy na amee ci la waaw suuf bi wala ngay gàllu sax suuf bi ngay julli rek gerte mu ñaari suuf wala suuf bi jiibale alquran jàng alquran kàttu leen ak jiibal xam nga jàng alquran boo jàng jàng daaw nañ ko jàngal jàng yu diib ñu ngi ko gën a jàng alxuraan mën nga caa topp di bindee la muy wax. tartiir nag jàng alxuraan te biir ko di ko tartiir kooku moo gën a màgg fa yàlla. jàng yu gaaw nag moo gën a bëri ci yoon. lu tax jàng yu gaaw dañ ci mën a jàng lu bëri. te yéen dafa ne sallallahu alayhi wa sallam dala am ci wépp xaraf boo jàng alxuraan xaraf bu ne fukki yiw suñu nee gën a addunaa yi ci biiram. te duma leen wax ne alif laam miim xaraf la dama leen di wax ne alif xaraf la laam xaraf la miim xaraf la bi nga xam ne xaraf la dem jaam fukki yiw nag na nga gën a jàng lu bëri rek ba yiw gën a bëri waaye na nga diiwal ko jàng ko jàng yu ànd ak waaye diibal ak wet ak teewlu kooku moo gën a màgg tartiil moo gën a màgg jàng yu gaaw moo gën a bëri xel di nga xam ne am nañu kàttu nit boo digalee def nga leen dëgg boo ko xoolee tey ñu gën a bëri yàlla xaaral ñu gën a gën a bëri. bu mën a jàngal alquran moom waaye kooku moog ci raw yu bari du ñëwoon koo xam ne ne dafay def temps temps temps temps sa mën a wax leen xarab bii ji doole kooku xarab bu nekk ñaari yu la am rek dinaa nag amin tamit ci xalam la tàmmin ale ko ci yow xaw na alquran faqilan bi yaa ñu yaru faqilan bi daa ji diis faqilan bi daa ji jafe toog rek danaa wàcce ci yow téere boo xam ne wax ju lagu la wax ju dëgër la wax ju jafe ay kajeef la de mu aakaar ji tudde na ko wax ju diis diis googu daana feeñ ci yonent bi bu yonent bi daa wàcc ci moom su dee ci bët ba dana sedd sax nga gis rek waaw yonent yaa ngay bakkandiku aw ñaq bu diisaay wax ni ak diisaayu maanaam ak jafe gi nga xam ne ni jafe gi mu lamboo ñoom la jafe rek moo tax bu dee ko wax ci biir dina naa ci ak léegi nekk saa yu guddi yéen moom sa bi mu gën a topp yoo xam ci dëkkoo de ak xol rek jàngal Quran nag baax na lool dëkk waaye guddi woo wax ci la sa xol bi mën a gën a dëkkoo ak ni nga jàng rek bu dëkkee soxla yi dañuy bëri xalaat yi bëri ci yow day xalaat di tasaaroo su guddee nag ba nga xam ne ku nekk ñoroo na waxtu la xol bay kenn nag ku ñëw déglu li ngay jàng rek waa moom moo gën a jub di leen ci wax dina dafa ñu ne daal dina teel ñaar ba dina ay ci dëkk dafa na waajoo fay yal bi yaay yu bëri rek ndax dëkkal da nga am soxla yu bare bare bare bare doo ci ngir jàng alquran boo ko jàngee doo ko teewlu moom waree waaye soo jëkkee ba digg guddi ba nga xam ne kenn ñu jënd soo dugg soo jàng alquran waxtu woo sa xol dana dégg li ngay wax de woo waxtu mooy waxtu jiraale ak ko bi ko am na ñëwee la parce que ñu tuddee isma rabbika borom sa boo jàngee nag nga tàmbalee bismillah rahmaani rahiim yeneen kilomètre sallallahu alayhi wa sallam lépp mbit moo xam ne xam na solo tàmbalewuñ ko bismillah rahmaani rahiim dafay jàddee dafay wàññeeku barke tax na leen lépp looy def na nga wax bismillah rek nga ko def sooy lekk mais bismillah rek nga ko def kon bismillah lu mu tekki maa ngi lekk ci turu yàlla sooy naan nga ne bismillah lu mu tekki maa ngi naan ci turu yàlla sooy wax bismillah maa ngi wax ci turu yàlla sooy gën sa kër sooy dugg sa kër sooy wàddu ak sooy wàddu seen bi nga xam ne moom la ñu nattale mooy seen bu xale yi jëf da ngay def rek boo xam ne jëf nga jëf nag te wax dëgg bismillah loolu jëf jëf bi ñett ba xew doon wata bakk ni dogal ni ilay jëm ci moom yàlla suñu kër dina ci jaamu moom ilay jëm ci moom yàlla suñu kër dina ci jaamu moom tafsiran ak dogu rek dogu jëm ci sa borom ak dogu rabul masriq borom tawgu wal maghrib sow daa daa jub ba yam ci dëkk daa wala moom ba taxul jàpp ko ci ñu ko jëy di jëm ci moom rek laa way rek mu ne na nga dogu jëm ci sa borom dogu bu ma tëkk borom bañ borom tey koo xaatu ki nga xam ne kenn mënu ko jaamu lu may moom te nañ ko def nañ ko jàpp muy sa wàllu mbéy. te dafa nuyu nañu kat ñu naan suñ ko ñu ne seen alal kat jaamu ñeneen ñi dogu jëm ci jaamu yàlla jaww sax ne la waaye nit ñi gën naa bëri loolu ku dogu jëm ci jaamu ci jaamu la jëm ku dogu ci jaamu yàlla ngir xaajoom ci xaajoom la jëm ku dogu jëm ci jaamu yàlla ngir alaaxira alaaxira la jëm ku dogu ci jaamu yàlla ngir maqaama ci maqaama la jëm ku dogu ci jaamu yàlla ngir xam yàlla ci xam yàlla la jëm ñun ñëpp dogu ñu jëm dogu ñu jëm ci yàlla dogu bu mag rek balaa ngaa dogu jëm ci yàlla nag nga dogu jëm ci yàlla rek loolu nag kenn mënu ko lu mooy koo xam ne di wax na ci yàlla rek ba gisatul lu dul moom. ñu taalam dinañ koy njëriñale mooy ku topp soo ko topp topp kam topp ba cofeel ga feewal ko ba ay bëtam dootu mën a gis lu may gën topp noppam dootu dégg lu may gën topp xelam du taxaat lu may gën topp bëri coow fi moom sax ñaare du ko gis xelam nga lap ca kam topp dafay mel ni moom la gis kooku jot bàyyi boobu ci coxee laal moo dogu jëm ca kam sopp sopp nag dëgg dëgg dëgg war ñoo sopp lu ma yàlla mu tax doomu aadama yaari yëf rek la sopp lu mag rek na ko sopp suñ la natt lewoon benn góor bu wéyoon ci junni ak ci gannaaw bëri xam-xamam wala tabeem wala njàmbaaram mag bi nga def lu ci moom rek dana tax nga daal di bëgg koo ko te gisoo ko ndax doomu aadama yàlla ko bëgg loolu mag doomu aadama lu mag rek la bëgg su fekkee doomu aadama lu mag rek la bëgg yàlla rek a mag mag bi mag tëkk doomu aadama bëgg na itam ku ko mottali mag la bëgg ak ku ko mottali bëgg ko defal lu baax bu ko dimbalee ci lu baax bu ko dimbalee nga xam ne yaa ngi koy yaa ngi koy jéem a mottali yaa ngi koy dimbalee ci nam mate rek ñu daal lay bëgg rek kon doomu aadama mag la bëgg ak ngot ak ku ko mottali doona war ñoo bëgg kenn lu ma yàlla yàlla rek a mat mat du mat te yàlla ñu mottali rek te loolu ñu ñu ci ay cilaay bi mu ne loolu jëm ci moom yàlla mooy borom kenn koo xaafu xanaa bon moom mag te kenn yooyu te jaamono mooy moom mooy ki nga xam ne doy na nga warit ñu ci mbir mi te ñu mbir ñëpp xaaja nañ jëm ci moom kon kooku moo mat te moo mat li bon nag ñu jaam bi war a def sopp kooku rek su soppee kooku rek nga dogu jëm ci moom rek na dogu jëm ci moom buy jaamu yàlla jublu ñu jaamu yàlla rek dañuy jaamu la jublu bu ñu xam yàlla jublu ñu xam yàlla kuñ xam ka la bëgg bu ñu jëlee yàlla bu ci maqaama ba yàlla ci boppam rek la bëgg su fekkee ni la fi nekk buñ yàlla jarab la ciy wut kooku mooy ci dogu jëm ci yàlla rek su taree su jullee su jàngee alquran su soppandikoo soppandikoo yaa dina lépp wu ci jot dara lu ma yàlla kooku ci dogu jëm ci yàlla rek dogu jëm ci yàlla niñ ko mën a dalee rek mënoo waaye lëf la moo xam ne kenn mënu caa di ci jàng ak déglu foog laa di ci mokk leneen nga ca wàll arab loolu lu gën loolu mooy lan mooy wax a gën a ci jërëjëf sa mbir ci yàlla ku ko tee baax ku ko tee dogu ku ko tee jaawu ku ko tee am ku ko tee dara mooy li yàlla wut ci yow rek su yàlla bëggee taratul noonu la su bëggee jaamu noonu la su bëggee nga fi kar noonu la su bëggee da ngay nu mu bëgg rek lan nga bëgg yow wutatoo dara fa loolu mooy dara ba moom la waaye ñetteel gi junjee parce que su jàpp ko wax ci la ñuy wàccee yéen wàcc leen nit ñi fa borom nag kooku moom amatu lu muy nam yaay ji daa am lef la am na feneen denc ci yenn rëpp wax dër mu ñëw alaam aaya ko roona ca la danañu wax ko rek mu ne nag ca la nga xam ne kilifa yi dañ la ko wax yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafay dellu ci jàmm nga xam ne nii aw yoon topp mbindee ñu wax ko ku séeru jëm ci yàlla lam ñu mbindee ñëpp dañuy jëm ci moom moo tax ñu wax xaalis yi malaamit yéena ñun yàgg lañ ñëpp ka doon di yàgg seen yoon waajurum toog ñu dem ak ñoom toog ñu gam yoon gi day yàgg doomu bi ñu ne doomu bu mat tëj te mu ne ñun lépp lu ñu wax rek nga gën a nuyu dañu mën a wala ñu tëj bi nag yedd ñu ñoo xam ne ñu yedd nag ñooñu ba maa ñoom damaa la leen xelal ba te mu nekk ñu projet rek yedd yooyu rek ñu ne amati ñebe wala ñu teewu ñi nga xam ne ñu ngi teewu ci àdduna tax ñu yedd wa maa ngi nii ñu xelal xar yu yàgg ak ñu ñëw ci jamono ñu ne leen tuuti rek moo def maxaral leen ñu daal di wax jamono bi ca Bakar bi la. xëy na ko doon ah naka àdduna ko dafa ñëw. am ko am ay comité. donc kon naa leen ay ay duñu ñu ma leen di tënke. yóbbu leen safara ya. yóbbu xëy na nag jëyeen. ak safara suy tàkk rek. wa taama na ñam. yaa ko fekk ñu di borom topp. ak ñam woo xam ne mooy saxoon bañ ci déen wala baree koy ñëw wala pus biin lu ci nekk ay dég nañ ko safara yoo xam ne bu ko lekk rek mu fot ko ñëw fekk biin bi nga fodde yàlla faa wane mu yore amee mu rek ñëpp ñëpp ak bu nekk gannaaw wala bu nekk ñu ñëpp xam nga ne yow ma tax ñu jëbbal yore ñu rënd la ne suñu war ji baaxul daje gis ba nga xam ne ñun ñoo ñëw tey rek gis suuf si di yëngatu suuf si ñu naan lañ ci koy géej gën ko tey jaamu baaxal waroon na yëngatu naka parce que yëngatoo ci géej yàlla xam ba ay bés ñu ko tey ba tax ñu yëngatu ci dem nit ñi ndax mu yëngatu woon rek waaw sa yëpp dund nag jabar ba nga xam ne yàlla fent na bi ñoom xaaral ci suuf si suuf si di yëngatoo nit ñi waxaana ci tamit xaaral ci baaxal ba ñu ko si gàncax gamu may ren bi yaa ñuy raay dër ñi nga xam ne ñooy dër ñi gën a rëcc àdduna nga xam ne ñëpp dañoo tuuti ba yëngu tuut soppeeku ganu waaw soppeeku pëndu naaw ci jaayu ni rek. bu fa keroog damaa képp kuy wedd rek. innaama tamit affaire naa yéen ñu ne yéen ku jëm ci yéen yéen mata. rafetlu ku ñëw itam yéen i jàll Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. saa yu gën ko daal di seet waaye ku waral day rek jëfee jëm yàlla. ku lépp lu doon yeeku bàyyi ko ci yéen ci xeetu mu yàlla. comment arsalna naka la yónnee daa faral di gëm ko Firawna naka la yàlla yónnee woon yónent yàlla Muusaa mu gëm ko Firawna xanaa tam mooy Firawna di Firawna rafetlu ko yónni gën ba Muusaa demee ca Firawna jox na ko yónent yàlla Firawna ba toog mooy def weddi ko waaw waaw kon dàpp ko ak kon ak jàpp wax dëgg yàlla daal di tàmbale Firawna alal jaww dem dem leen yëpp ba ñu dee yónent yàlla ba ñu yàlla mu jëm moom jàpp ko jàpp ko xam ne amul tënk boo mën a teqale ñu xool ko ci baax par gënd ba tey sa topp wala nga ngeen di ragal yàlla suñ taxaw suñ ngeen di ngeen ci àdduna loolu moom bés dañ leen ko gën a ñu gën xam ne daanaka daanaka suñu leen ñu leen di gaaw gaaw ci na ngeen di mën a waxtaan di gën dugal gannaaw boo xam ne yàlla ngeen yàlla di yàlla di tënk ngeen yàlla alaakara ci ñëw bi ba xam ne alaakara bés la boo xam ne su ñëwee dafay tasa tasa tasa boo xam ne góor yi ndaw yi dafa ñuy dañu ko jàng taxawaay yi ñu jàppale rek sama wala sama amoon ñun fekk ñu ak côté côté leen bi ñu jëndee bés bés di nga teewoo day gisee asamaan bi xoteeku dala ay lëñëlu lëñëlu ndax yéen a ne asamaan gis na sawar naa gis boo xam ne te barab tebre ñu may malaaka la fa taxaw waaw ru ko war a mu tuddee waaw war a mu jëkk wala mu taxaw di jaamu borom bu tënkal yàlla wala malaaka yi yéen ñëpp dañ leen tënkal yàlla ñu ne yow mu ne amul yow malaaka mu ne nappati fan toll ci asamaan rek waa asamaan si doomu aadama yi taxul ñu bind rek dañuy dégg asamaan si malaaka mu ne xottu fan toll woon rek asamaan daal di nekk ay kawari kawar. bu def keroog daa nekk ne wax dëgg yàlla dëgg yàlla na ko waral ñu ne ñu defee keroog lépp lu yàlla jëlee woon ñu dana ko def ci doublé ak keroog dana ko def rek. inna haadihi masalun saara tadkiratun waa'izatun saara mu gën ñu ak waa bële ba man saa ak soog nañu ittaxasa mu jàpp ilaa rabbi jëm ci boromam rabbi la ñu doon jëm ci gëmam ak ak soppam de um soog nag nga déglu ñu saara wax saaru Makka baay man dafay am lu yëgal ak yàlla ak yéen ku gën ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak mbir yaa àxira lépp saara ko fa naleen ko um soog nag nga jàpp ci gëm yàlla bu tax yàlla ba nga koy dee suñ soog nga yegg mën nga muy def ñu ne la fa tamit borom fa yàlla mu gën a mu xam am na tamit yow waaw boobu da nga julli xam naa lu bëri ñoom ñun suñu sëñ bi ñaari suñu si guddee yëpp fii ak genn wàllam wasuñu fii ak suñu sëñ la ñu bàyyi yërëm suñu fa laajee fa dem yàlla seede na ko ne ko yow xam naa ne da nga julli guddi ay tàng ñaari suñu si guddi nga nelaw benn suñu ay tàng nga julli genn wàll guddi nelaw genn wàll guddi ay tàng nga julli suñu si guddi nelaw ñaari suñu si xam naa ne yow da nga ko def wakaay ba kuma tële ñu ne dina ñaanal maa daa dina ko leen mbay yor naka noonu mbooloo ci say saaba ñoom it beneen julli waaye ba ko ngeen dundee julli noonu naa leen yàlla seen taal ci ay yëpp na ne ak yu ko rabo gisal leen julli mooy matal rukoo ak sujjóot complet na ne wax kaw maa daa ci yéen a julli yéen a ànd ak julli këree mooy nga julli ko ci mbooloo yeneen ci noonu la dafa ko liggéey jaay ñëpp di ñu daal ñëpp ci bu dëkkee jàkka xamuloo julli mënoo ci jàkka jeex ndare ngant waral ko nag julli ko ci waxtu inna salaata kaanat alal mu'miniina kitaaban mawquutan te borom ñu yàlla ci bëggee julli ñu ci ñoom ñu ci ñoom ci salaat ñu xaar na ñu mooy daje ci julli mu fa ko doon julli yéen ci biir moom yàlla wax na ne moom ak saabaam joxe leen julli ni ko ko yàlla bëggee. tudd na leen fii tudd na seen mujj dem def saabu moom ñëw na. na ne ulaa'ika humul waarisuuna allaziina yarithuna firdaws ñu maxal mboolem li yàlla dig leen ci julli yàlla ñu ci yàlla boole ñooy waarisuuna ya nga xam ne ñooy doon firdaws beneen kuréel lànk nañ yëpp. julli wi waxuma di julli ci mbooloo waxuma di weesu waxtu waxuma di farax lu leer ñoom bañ nañu julli yàlla ñu ne falaa tabaq wala tabla dëggaru julli ñooñu yàlla wax na seen nit dana ñëw ci saa yi ci kuré bi laaj nañ leen maa salakakum fi saqar liñ tontu lam na ku ngeen musalliina ñu ne dañ daaw julli ku bëgg a dem ak jana julli ñoo jàppal ci julli waaye ne ñu leen ko Jabi ñu mën a tëjee ci aljana mu nekk dimbali leen ci diggante yu bari yëpp. yàlla waaye dañu ko béy ba mu fàttali leen a guddi gannaaw laa bëccëg. yàlla xam naa guddi bëccëg ak lépp lu ci daw Aliouma xam na mu am na tamit ren bi dañ ko xëyoo xatam ci leen ko rek yàlla xam na ne fi leen war a yëngu ci guddi lépp wala ñu ci fi guddi bu leen ko mën lépp ba taala nangu nangu nangu nangu tuur ale ko jéem ba taaba gane na moom yéen dem ci xoofal léegi yàlla ñu ngi xoofal nit ñi rek naa fi dëkk bi wax na loolu ci leen maa kay fa ñu jàpp ñu moo xuraan ci alxuraan la léegi nag naa fi dëkk bi xasatuñ la ca dara lu may sa seen kattan ku mën a julli guddi lépp ku mën a julli janoore guddi ku mën a julli tuddi ku mën a julli tuddi ku mën ñaar baatal jëkk sa faa wiikar ku mënul lu may sa faa wiikar bu mënul lu may julli joxe ca mbooloo ma julli ci bëgg mbooloo ma bu naa fi réew dara ca guddi réew booy julli na guddi ga léegi nag ba nekk naa ngeen ko def di jàppale ci moom rek xale nga xam ne am na ko biram bi tey ko dana nekk ñun suñ ci yéen ma daa war a def yàlla xam na ne dana am ci yéen ñu ñu ëpp ay jamono waa xam naa ñeneen yàlla ñu bëri danañu dox ci dara ci suñu sax danañu bëri danañu sax ñun sax daal ci wu ñu am na ñoo xam ne dañuy sukki di wuti wërsëg di jënd marché ni di indi di jaay ko jënd yaa xam ci kat yaa ngi waa xam naa ne ñu xaatale danañu jaar ci kat yaa ci yoon yàlla ak ñoo xam ne dañuy jël ci sukki ndax di jiyaat ji dem na fa commerce ci jiyaat yàlla xam naa lépp lépp ci yéen moo tax waaye xam naa naa fi de farafara ci yéen bi rek moom sañu ko bañ ñu ci def nag lu waaye man rek na def loolu ndax dana am ñu soxla dana am ñu ñu tukki di ñu ci wërsëg dana am ñu jiyaade yaa ci ñu def yaxante ci nit yi gën te ci njëriñu ko ci yow ci lislaam la bokk yéen ci mën na bu fàggu marchandise moo xam ne amul ci dëkk bi bu njëkk ci dëkk bi te jaayee ko jox dëkkam mooy lan ko jëndee woon nga dolli ko kucceel ba ak pareem ca teg nga jaayee ko lool loolu mooy mooy njëgam dëggam jënd nga ko ca réew fay ci ba andi ko fii xëy na xëy na yëfaat du waay ba nga fi nga toog liñ ci pare yëpp lan nga dikkal nga def ca fukki yoon nga def muy sa muy sa sama boo ko jaayee loolu loolu mooy sama du waay kon yaa nga dali la dundal yàlla ci jihaad ak yàlla ci sadaqaale la te gis nga ñu ngi jiital kooku fa ci fii jihaad ku feebar itam jullit buy fablu ci néegam ba feebar bu feebaree ba tëdd yàlla fa wax malaaka yi bindal leen ko li gën ci leen doon jëf ba ñu wér bu ñëwee daal bésam ba nga xam ne gën a gën a doog wóor lan ca def danañ ko bindal loolu ndax sama jaam bi maa ko tëye loolu lañ koy bindal ba muy wér bu ci suba fan itam loolu naa fi ak yeneen fi ne sallallahu alayhi wa sallam jullit ku taxaw genn wala jullit ku jëkki genn wala jullit ku taxaw lay doon suñu naafila taxaw loolu la def ko naafila genn wala bi yaram lay am lu may ñett ku feebar su jëfandikoo naafila yi yàlla ku taxaw lay am ku am juróom benn fukki at su jëfandikoo naafila yi yàlla ku taxaw lay am ku tukki ba song moom itam su jëfandikoo naafila yàlla ku taxaw lay am de day def rek taxawal julli leen maa koy faral di jàppale ne muy jaar xaar julli leen daal seen kon kàttan waaw te ñu taxawal leen salaatal julli léegi yàlla dina ko fay lu gën lam doon def ba mu dee barke dund mooy jamono ndaw soo tollee ci sa ndaw bu góorgóorlu ci yàlla boo jotee ba màggat la nga mën a dugg soo ko bàyyi itam yàlla fay wax malaaka yi dañuy ko dundal lam doon def ba muy ndaw am doore la gën ci rek la def bu ndaw dikkee nag nga ne man gan yaay dara wala wala màggat ñëw nit ñi yéen feebar yi jàppale ma ko def dara xaw ma kañ yaram dara waa bi moo taxawal leen salaatu julli ñoom lay laaj waa koy joxe leen zakata asaka waa kuri du lebal leen laala xar leen lebal xar leen bi daal yara ko bëgg leen taxaw ci ñuy juróom di dënnu asaka te lebal leen yàlla lebal ko waxee de bu ko ko waxee ko bu dënnu ko lebal ndax nit bu la ne may ma boo séntu ne dana la fay waaye su la ne lebal ma danga yaakaar ne dana la fay moo tax yàlla tuddee tabax bi lebal nit ñëw ñu wër la ne ñu jël saa ji jëlu ko daf lay fay. lebal bu rafet nag mooy génne ko ci xol bu teey doo ko jàpp muy takk vraiment ku xaj lu ngeen jiital yaa ngi ci suñu ñaar ak bopp seen ñun xaar yi ci daaw yi ñu ngi lay te ci dee da ngeen fekk soo xam nga laaj ko yàlla mu yéen xaar ñaar yi dem ñaar yàlla lépp loo xaar ci saa yoon ñu dem alaaka dañ ko fa fekk ñu gën ñu gën lan jalaal ne ñu gën la nga defal nga waaye du ñu ne ñu gën la nga lekkoon ci sa bopp ndax li nga defal moom fàttali ko rek boo rek li nga jiite mu jëm ci yàlla duñ ko peese am teel a gën a ci nga xam ne ñu ngi tegu lim gën mooy lan lim gën mooy li nga lekkoon yow li nga bopp rek soxla lim ca jëriñoo am la nga daawal mu jiitu la fa yàlla moo koy gën fuu waaw sama dëgg la maa fi ajuram ci biir ba mooy ko alfam léegi naa Omar ibn Khattab maa ngi leen di dégg jumla bi nga demee ci Bakar maa ngi tuddee ko ca Madina ñu ngi ñëpp dañuy taxaw ci buntu bi nga wër ne asalaamaaleykum yéen sama mbokk yi nga xam ne jiitu ngeen ñu dañu ñu bàyyi leen fekk si ma wax leen nga taw seen gannaaw seen kër yëpp dëkkee nañ ko seen aaral yëpp séddoo nañ ko seen jabar yëpp yeneen góor benn góor yu ren looloo taw seen gannaaw rek. baax bi nit ki ba mu bamee ne ko waaye lépp luñ jiitaloon bokk nañ ko fi lañ defalee gannaaw xanaa loo leen topp naa rek lépp lu jiite leen bokk nañ ko fi. moo tax yàlla ne lépp lu ñu jiite ci seen awal ñu am seen bopp danañ ko fekk ñu gëm de moo tax nit ñi bu ko danoon gënal boppam rek nga bañ a koy gannaaw ñu xam moo gën nga bañ a leen ñu yalwaani yonent wax na ko sallallahu alayhi wa sallam waaye itam loo leen bëgg bëgg ñu nga bëgg sa bopp de jiitalal sa bopp dara yi gën jëm sa wàll. waxtaan bi loolu bañ leen laa la. ñu laa la ko yàlla wax.